إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مهجة بيداء ليلها, ليلها, ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله حق التقوى فلقد خصكم بالدين هو الأقوى دين الإسلام الحنيف الذي جاء بكل خير وصلاح للبشرية جمعاء أيها الناس لقد جاء الإسلام بتعليمات كريمة ومبادئ عظيمة من أخذ بها عز في دنياه وفاز في أخراه وجعل وجعل مبدأ تقوم عليه تلك التعليمات ألا وهو العدل العدل هو مصدر الأمن والاستقرار في الأرض هو مصدر الضمان للحقوق واطمئنان النفوس أيها المسلمون من خلق المؤمن الوفاء بالعهود والتزام بالعقود قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وأهلهم راؤون وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ay yéen mbokk jurit yi ñi ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala ñi ngi koy ñaan mu dimbali ñu ñaan ko mu jéggal ñu ñaan ko mu musal ñu sunu ay bakkan ñi ngi seede ne moom rek mooy ki yeyoo ñu koy jaamu di seede na muhammad ndawam la woon jaamam bu mu yónni ci ñun tegoon na ko ci yoon boo xam ne bu jub la xal woo xam ne bu leer la ku ca jaar texe nga àdduna ak alaxira ku ko teggi alku nga àdduna ak alaxira ngam la yéen mbokk jullit yi xam leen ni diine ji ñu yàlla tànnal muy diine ji gën a mat bu mas a ñëw ci kaw suuf di diine ju gën a jub bu mas a ñëw ci kaw suuf diine jooju sunu borom yàlla mi ngi ko teg ci njàngale moo xamee ni nii ña ca jaar rek a texe ña ca jaar rek a am jàmm jàngale boobu mooy lan mooy jàngale maandu te yow mbokk julit maandu te googee gis nañu ne ci la asamaan ak suuf taxaw maandu te googee ci la yàlla subhanahu wa taala di attee jaamam maandu te boobee lépp loo xam ne nii lu baax la lu équilibré la mi ngi tege ci kaw maandu te googu loolu moo tax ba am jàmm du mën a am cim réew am jàmm du mën a am ci kenn lu dul ne ak maandu te day doon loo xam ne nii lu ñu saxal la loolee di mbir boo xam ne nii ku nekk na ca bàyyi xel la doon loolee dafa jëm ci wàllu atte doomu aadama yi war nañu xamee ne atte bu mu mën a doon jaami yàlla yi ñoo ca bokk yem jaami yàlla yi ñoo ca bokk yem sunu borom buy àtte àtte ye génnewu ca yonent ak doomu yonent looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis mas nañ koo indil benn kaa benn jigéen bu tedd ngi nii sàcc na ndax amuñu pexe buñ mën a jaar ak moom ba bañ a dagg loxoom yonent bi alayhi salaam mer dem yéeg ca koo min barba ne li alagoon xeet yu jëkk ya mooy lii mooy ku tedd bu defee ci ñoom la yàlla tere ñu daal di maslaha ak moom bu dee ne nag koo xam ne dafa doon ko suufee bu defee la yàlla subhanahu wa taala tere ñu daal di teg ci moom àttem yàlla bi loolee mbokk gis nañu ni ak jëng la doonte ne nii jëng googee bokk na loo xam ne ñaari jëng la benn ñaari jëng mooy lan mooy li nga xam ne danay am ci ay réew te la ca gën a metti mooy ñuy woote woo julit mooy benn jëng nga jël nañ àttem yàlla ba sànni fële mbokk àttem yàlla tey mooy lan tey boo doon déglu sunu média yi da ngay dégg li nga xamee ni nii moom la ñuy wax ci ay nit ñoo xamee ni nii am nañu taxaw ne ñoom ñoo rey doonte ne am na ñu ñu ne ca rey ga lañu bokk lan nga dégg journaux yi di ko wax mooy ñi ngi risqué tëdd fukki at yu kaso wala ñu tëj leen ca kaso ba ba baa ñuy dee mais yow julit loolu la sunu waay réew wax waaw sa borom yàlla mi moom réew mi moom waa réew mi nag moom lan la wax mbokk jullit lii nga xamee ne mooy rey bakkan boo xam ne yaa ko tey def ko da ngay gis ni képp ku ko def lay àttab yàlla mooy yow dañu laa war a rey xanaa lu dul ne ña nga xam ne ñoom la ñu reyal ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo taxaw daal di ne déedéet nañ ñu jox ab diir waaye bu dul looloo ki nga xam ne mooy attekat bi da la war a rey bu dee mbooloo ñoo rey nag bu dee mbooloo ñoo rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi jógee bàyyi fa xula ful xulafaa rachidin bokk na ci do Omar ibn al-Khattab mas nañ koy indil benn kaa bu jóge woon ca Sanaa ca Yaman juróom benn nit ñoo xam ne dañoo ñëw jàpp jàpp benn gaay rey ko bañ ko jàppee rey ko Omar ne nañ leen jàpp ñoom it rey leen gaa yi na ko waaw amirul muminin nu ñuy reyee benn bakkan nu ñuy reyee juróom benn bakkan ci benn bakkan Omar na leen maa ngi leen di seede ne bu doon waa Sanaa muy benn capital ba nekk ca Yaman ñoom ñépp ñoo daje woon rey benn julit ñoom ñépp dinaa dig la ñu rey leen loolu mooy atteb yàlla mbokk loolu mooy li maandu jël doomu aadama rey ko rey boo xam ne tegoo ko ci yoon sa pay ngal la waay nekkul ñu yóbbu la rëbës wala camp pénal sa pay mooy nekkoon yaa ko tey yaa ko rey ñu rey la mbokk gannaaw loolu bokk na maandu te itamit mooy ñu xam ne liggéey yi ñuy liggéey dañ cee war a maandu tey jii sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ay yéen jullit ñi na ngeen matal dig yi ngeen diggante daa di tagg ñi nga xam ne dañuy matal seeni kóllëre sunu borom yàlla teg ci ne ay yéen jaam yi man day dama tere tooñ ngalawaay daa di koy araamal sama bopp araamal ko seen diggante ngalawaay bu leen tooñante doomu aadama lépp looy sokk ci kaw suuf bokk na loo tee war a di ko seet mbaa lii may def tooñu ma ci kenn kenn terewul laaj saax waaye jamono di ne laaj saax baa tooñoo kenn bokk na ci loolu mbokk julit sunu mbokk enseignant yi nga xam ne tey jii wallahi ci ne boroom xalaatkat yu rafet yi nekk ci réew mi yëpp seede mooy tooñ nañu waa réew mi waxuma tooñ nañu élève yi ne tooñ nañu waa réew mi bokk na tooñ gu mag bu ñu tooñ réew mi mooy li nga xam ne tey jaaxle gu rëy nekk na kenn xamul foo jëm dañuy année blanche musiba mënu koo paase dañuy bàyyi xale ñu jàngi xale yi nee nañ mënuñu récupérer année bi fitna boo xam ne kan moo ko waral mooy ñoo xam ne ngànk nañ ci benn problème ne duñ ko bàyyi ba ñu yegg ci impasse bi mbokk julit lan moo waral loolu mooy ay nit lañ yoo xam ne jàngal nañ leen ba tudd leen boroomi maîtrise boroomi doctorat ca kenn jàngalu leen lan mooy tegginu lislaam kenn jàngalu leen la taxoon seen borom indi leen ci kaw suuf kenn jàngalu leen bu ñu dee taxaw ci kanamu borom bi lan moo leen di xaar lañ leen jàngal mooy droit de l'homme lañ leen jàngal mooy droit du travail lañ leen jàngal mooy lutte syndicale looloo tax dugg nañ ci guta dugal ci waa réew mi yépp mbokk jurit ndax doomu aadama bi war na taxaw ne man li ñuy am fokk ma am ko mbokk doomu aadama yi nañu xam ne sunu borom yàlla mooy li nga xam ne moo nattooy jaamam daal ne ahum yaqsimuuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunya wa rafacna bacdahum fawqa bacdin darajat liyattaxida bacduhum bacdan suxriya xam leen ne man yàlla maa séddale sama yërmaande ci yéen daal di yëkkati ñii teg ca kaw ña ca des ñee yàlla nattoo leen ñu doon boromi alal ñee yàlla nattoo leen ñu doon ñu ñàkk ñii yàlla nattoo leen ñu doon ñoo xam ne boromi pexe lañu am xam-xam bu rëy ñii yàlla nattoo leen xamuñu lu bari sunu borom yàlla nañ ne ne ñi nga xamee ni ñii yàlla da leen a génnale nañ jël ñi ci des ñu daal di leen di jàpp di leen liggéeyloo ngir àdduna dox heure bu yàlla subhanahu wa taala jëloon alal tasaare ko ci doomu aadama yi balaa weere àdduna tukki ndax dana am liggéey yu bëri kenn du ca taxaw loolu moo tax ba mbokk julit àdduna dafa taxaw ci lan mooy dimbilente ñi man ña xam ne mënuñu di leen dimbili bu dul loolu àdduna du dox loolee mbokk moo tax ba ngan la waaye nañu xam ne lislaam daa tëral ay yoon liggéey lu jaamu yàlla la liggéey jaamu yàlla la loolee képp koo xam ne employeur la wala syndicat nga wala dañ la employé war ngaa xam ne liggéey lu jaamu yàlla la waaye liggéey jaamu yàlla la maadaama jaamu yàlla la sunu borom dana tëral naka la gën a rafete xoolal sunu borom subhanahu wa taala mi ngi nettali benn contrat contrat boobu ci kan lay dal ci Muusa alayhi salaam bokk ci juróomi nit yi gën a rëy ci kaw suuf sunu borom nettali ne dem na ci benn dëkk benn góor bu baax woo ko ne ko man day dama bëgg nga ñëw ma embauché la ci benn contrat boo xam ne dana duré juróom-ñetti at léegi su dee na matal nga ko fukki at loolu sa mbaax la lan mooy fayu contrat bi mooy danaa la may sama doom ji danaa la fat sama kër ji yoral la sa dund yoral la sa logement may la sama doom nga sàmmal ma juróom-ñetti at loolee mbokk bokk na lu ca borom xam-xam yi di wax mooy bépp contrat de travail bala ñu koo commencé war nañoo xam waa ji lan lay liggéey waaye war nañoo xam waa ji lan lañ koy fay contrat boo xam ne xamuñu lu waa ji liggéey loolee lislaam du ko gërëm waaye di liggéey xamuñu ne ñooy fay islam du ko gërëm waaye déglul lam ca boole kookee di góor gu baax googee doonte ne am na ñuy wax Shuayb la am na ñuy wax leneen góor gu baax googee bokk na lum ca wax mooy maa uridu an ashuqa alayka sa tajudini insha allahu min as-salihin doo ma fekk mukk ma lay sonal dang ma fekk mu mu dang ma fekk moos moo bokk ci gaa yu baax yi loolu moo tax ba sunu borom subhanahu wa taala bokk na lu mu gërëm yow mii liggéeyloo ka ngay liggéeyloo na doon état nga wala kum mën a doon ci jaamu yàlla yi mooy loo man ci yërëm ko loo man ci ñeewantu ko loo man ci baaxe ko loolee war nga ko def yonent bi alayhi salaam ne ixwaanukum xawalukum jaalahum allahu taxta aydikum fa man kaana axuuxu فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم yonent bi alayhi salaam mu ne ay yéen jullit ñi ñii nga xam ne yéen leen ilif kat loolee yàllaa ko dogal tey jii service ba mën a dem ndax directeur ba mooy ko fa gën laa wallahi ndax moo fa ëpp doole laa ndax moo fa ëppum njàngal léeg-léeg laa kon yàlla subhanahu wa taala moo la def nga jiite yow bi yor magasin bi xoolal say employé ndax yaa leen ëpp xam-xam ndax yaa leen ëpp doole laa yàlla subhanahu wa taala moo def nga leen di employé yonent bi alayhi salaam mu ne ngal la waaye na ngeen fexe rafetal seen bu yor fexe leen ba ñuy mën a lekk li ngeen di lekk fexe leen ba ñuy mën a sol li ngeen di sol bu leen leen teg mukk lu ñu attanul lépp lu ngeen leen teg na ngeen leen ci dimbali lu waral lii lu waral lii mbokk julit mooy sunu borom dane inna akramakum inda allahi atqaakum ka gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon mën na am kii kat sama employé la waaye moo ma gën ca yàlla subhanahu wa taala kon lu ma man ci lu baax dinaa ko ko defal bokk na ci it mbokk julit mooy ñu daal di góorgóorlu ci li nga xamee ne nii mooy heure bu ñu jógee di jéem a liggéeyloo doomu aadama fay gën fa cay fay nañu xam ne jaamu yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ñetti nit ñoo xam ne dañoo demoon benn taw ñëw ñu làqu ci benn montagne yàlla dogal benn xeer tëj leen fa ñu ne daal lenn dong moo ñu fi mën a jële ku nekk na seet lam daan def te yàlla tax mu daal di koy tudd ñaan yàlla kenn ka wax la muy wax ñaareel ba wax la muy wax waaye ñetteel ba bokk na lu mu wax ayum yàlla yu ay yow sunu borom xam nga ne day nattoo woon nga ma benn waay bu mu doon liggéeyal bokkoon ci ñu may liggéeyal ba liggéey ba sottee ba may fay moom gisuma ko ma jël alal ja dencal ko ko ba mu yàgg ma ne lii daal bu yàggee du intérêt jëndal ko ci ak jur jur nga di màgg di màgg ba doon daanaka gétt bu rëy mu ñëw ne ma fay ma sama salaire ya nga ma yoraloon ma ànd ak moom ba ca jur ga ne ko lii mi ngi ni yaa ko moom mu ne ma bul ma saboote sama salaire laa wax nga fay ma ko ma leeralal ko naka la jur gi demee mu daal di buub ak juróom yóbbu yàlla lii bu dee ba ma koy def bëggoon nga gërëm ma dong nga tax yàlla nag ñu génne ci xeer ba bëri mu daanu ñu daal di génne dem seen yoon mbokk lii lan la ñuy jàngal mooy kon ndekete heure boo xamee ne nii yaa ngi génne salaire u kanu liggéeyal sa mbindaanu la sa employé la sa kum mën a doon nga la waay xamal ne lii moo gën a màgg sarax bi ngay sarax miskin bi ndax lii farata la ci yow boo ko jëloon sarax ko miskin bi ba nga fay waajib da nga cee am bakkaar bu rëy loolee kon ñu bàyyi ci xel aji képp koo xam ne yaa ngi koy liggéeyloo bari na musiba yi ñuy nekk suñu réew mooy nit ki ñu liggéeyloo ko ba pare fayuñu ko ca mu bokk ci loo xam ne crime la loolu mooy li tubaab di wax comme nu ma ko wax sax ci wolof mooy musiba mënu koo passé crime la mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci mbarit mi xoolal benn waaye ngi nii ñu liggéey loo ko weer ñaari weer ñetti weer ci yow loo xam ne mbalit yu salte yi la ñuy jël feebar bu ne mën leen te toppe nga dégg ñu naan wasios waa nangam waa nangam ay weeri ngi fay ñu leen ba ñuy def grève de la faim loolee ndax ku am njàngaleem lislaam dana def loolu kaay déglu lan la yonent bi alayhi salaam wax yonent bi alayhi salaam nee na salaatatun ana xasmuhum yawma alqiyaama ñetti nit ñii day man la ñu amal affaire man may taxaw daal di leen di avocat contre ña nga xamee ne ñoom lañ doon lool ñoom lañ doon lool kenn ki mooy lan bal li nga xamee ne nii mooy sunu borom mooy wax loolu mooy sunu borom moo ne ñetti ñii man la ñuy jàppante yowmal qiyaama yonent bi daa nettali rek kii dafa ñëw fasante kóllëre boo xam ne ci sama tur lañ ko fasante ba pare mu wor waa ñu wóolu ko ngir yàlla mu wor ëllëg gi si biir kii man lay waxal du wax ak waa ji ñaareel bi mooy ki fekk as gor mu ëpp ko doole dem jaay ko jaam ëllëg gi si biir du wax ak moom man lay waxal waaye ñetteel bi mooy kan mooy ki liggéeyloo doomu aadama mu defal ko lam ko santoon yépp ba pare mu bañ koo fay ku mel nii man lay waxal yowmal xiyaama kon tey jii bu ñu déggee réew moo xam ne ni ay jullit lañu ñu dégg ne waa Sotrac waa waa Suwadib waa kaza wa kaza ñu ngi leen yoroon ay àq yoo xam ne nii genn wàll ga dee nañu bal am na ñoo xam ne sax dof nañu képp koo xam ne sabab la ci loolu ne xam ne ëllëg suñu borom yàlla lay dagg fen ay yéen mbokk jurit waxuma bañ a fay waa ji àqam waaye kay déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la waxoon mooy utul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqahu képp koo xam ne liggéey nga ko liggéey loo nga ko nga la waaye balaa ñaqama fer nan ko fay maadaama def na liñ ko santoon bu ko xaaree tey ëllëg si biir ngoon fay ko balaa ñaxama fer bokk na ci loo xam ne it mbokk jurit kenn kuy liggéey loo ay nit war cee bàyyi xel mooy respecté ko am nañu bëri maadaama maa lay employé sama usine nga nekk sama société nga nekk sama magasin nga nekk sorewul ak jaamu démb ya lu la neex wax ko lu la neex àngale ko lu la neex xas ko mbokk loolee safa noonu ak njàngaleem islam ki nga xam ne mooy Anas ibn Malik nee na man day nekk naa ci service yonent bi alayhi salaam fukki at fukki at yoo xam ne nii dañuy gis ne yonent bi alayhi salaam musuma caa wax la nga xamee ni ne moom mooy ëf loolee kon ñi ngi fàttali waat sunu bopp di fàttali képp ku yàlla nattoo am ku nekk sa suuf nga koy jox ay ordre di koy liggéeyloo nga la waay ragalal yàlla ci moom te xam ne ëllëg gi si biir loo jëflante ak moom la nga xam ne mooy pay ba dana la fekk sa kanamu boroom yal na yàlla subhanahu wa taala jàppale ñu ci lépp loo xam ne sant nañu ko ñu def ko na nga xam ne noonu la ko gërëmi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في جميع أعمالكم فإنكم ستلاقون يوما وصفه الله بقوله وندعو موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أي المقدرين نيجي سنتات سنو بروم جل وعلا di ko ñaan mu sax di julli ca yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye gannaaw loolu am na benn aaya boo xam ne bari ngeen dégg imaam yu bari di ko tëje seeni xutba mooy inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan lu waral loolu mooy moom rek daa doyul xutba aaya boobu rek daa doyul xutba mooy sunu borom yàlla nee ni mi ngi digle ak maandu tey maandu tegoogu mooy ku ne jox ko ak ba mu yeyoo waaye gannaaw maandu te sunu borom mi ngi digle al ihsaan ana kan employé buy def ihsaan ca ña nga xamee ne ñoom lay employé may leen seen salaire jox leen seen ak ba pare may leen loo xam ne sax yeyoowuñ ko woon loolu la sunu borom yàlla digle wal ihsaan noonu la diglee itamit ñu jox jegeñaala yi waaye tere lépp loo xam ne ñaawteef la lépp loo xam ne lu bon la tere it li nga xam ne mooy albax yi te mooy bew te dew mun tey passé liggéeyloo doomu aadama bi ba pare joxoo ko la nga xam ne mooy ak xam suñu borom mu ne fàttali naa leen ngir ngeen fàttali ko looloo tax ba yéen mbokk jullit yi na ngeen ragal yàlla ci seen lépp ragal yàlla yimul ci jàkka ja ragal yàlla ma nga ca marché ba ragal yàlla ma nga ca kër ga usine ba société ba xam leen ne da ngeen mës a daje bis boo xam ne sunu borom ñangal na ko lool nee na bis ba ñuy teg balance yi woo doomu aadama yi lépp loo mës a def ci lu baax même bu tolloon ne pepp dugub sunu borom yàlla dana ko indi loo mës a def ci lu bon même bu doon pepp dugub sunu borom yàlla dana ko indi te yàlla nee na doy na ci man ma nekk ab réglakat loolu moo tax ba lii buñ ko waxee sunu njëlbeenu xutba moo di ne ne liggéey jaamu yàlla la jaamu yàlla buy séddilikoo ci kan ca ka nga xam ne mooy liggéeylu ak ka nga xamee ne nii mooy liggéey ay yow mii liggéey ndax ka lay liggéeyal bu amee ay ndénkaane yu ko lislaam dénk yow yàlla dénku la dara aha kay yàlla dénk na la dara sunu borom yàlla dan la la jëkk a dénk borom bi def ne wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan heure boo xamee ne jóg ngeen dee leen dimbalante ci lu jur njëkk ak ragal yàlla bu leen dimbalante ci bàkkar ak noonu ça ne veut pas dire que man damay liggéey rek kon sama ñaq lew na ma déedéet mbokk julit boo liggéeyee ci sangara liggéey nga lu xaram boo liggéeyee ci riba liggéey nga lu xaram boo liggéeyee jaay sa bopp liggéey nga lu xaram fépp fooy liggéeyee da nga xool ndax li may liggéey daganam daganul gannaaw loolu mbokk julit xamal ne yow heure boo xamal ne yaa ngi jóg di liggéey yaa ngi fi sabilillah yaa ngi fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ci benn xare benn jeune rabb fële gàddu ay buumam gars yi ne ah kii aka neexoon mu ñëw fi sabilillah yonent bi alayhi salaam ne su dee daa génn ngir ne am na ay xale yu amagul kattan mu liggéey lu mu leen dundale day mi ngi fi sabilillah su dee daa génn ngir am na màgget yu mun a tudd liggéey mi ngi liggéey lu mu leen dundali fa huwa fi sabilillah xataa bu doon dafa génn ngiree bañ naa wër di ñaan nit ñi muy liggéey lu mu dunde huwa fi sabilillah kon yow mi gàddu say koko gàddu say socc loo mën a gàddu nga la waay bul xeeb sa bopp anta fi sabilillah société boo mën a liggéey même bu doon yaay balekat ba bul xeeb sa bopp anta fi sabilillah yaa ngi nekk ci li nga xam ne mooy en fi sabilillah mbokk julit yow mi nga xam ne yaa jóg di liggéey góor góorlul sunu borom mu ne الذين هم لأماناتهم وأهلهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون sunu borom mi ngi tàgg ñi nga xam ne lépp loo xam ne dañ leen caa wóolu lañ koy sàmm waaye lépp loo xam ne dañ koo seede dañ cay taxaw heure bi ngay dugg ci liggéey bi am na contrat boo signente na doon këyit la wala ay wax ngan la waay masalal loolu bu ci indi ay tappale bu ci indi la nga xamee ni mooy ay woro wax ngeen da ngay ñëw huit heures ba quatre heures bul sàcc heure yooyee def ko nañu la ko waxee gannaaw loolu itamit nañu doon ci suñu liggéey ñoo xam ne ñoom maandu lañu xam ne yow mi ngi liggéeyal ci magasin bi ci service bi bu dee waa ji yéegu la ba lu la neex nga jël ci loole di ngay gis ne sunu borom yàlla nee ni inna allaha kaana aleykum raqiba ca laajal tey commerçant yi laajal grossiste yi bokk na grossiste yi bari yu tëj lan moo leen tax a tëj mooy amuñu ku leen gérer koo indi balaa fa am deux mois trois mois daal di la defal trou boo xam ne moo lay daaneel daanu na daaneel laa leer la kon yow mi nga xam ne yaay liggéey du sa chef ngay jël comme contrôleur du kenn koo jël comme inspecteur sa inspecteur bu mag sa contrôleur bu mag mooy sa borom bi nga xam ne dara mënu koo rëcc misqaala zarratin fil ardi wala fi sama gannaaw loolu moo ko jurit waaye di nga xamee ni dafay liggéey ay waay na góorgóorlu jàpp ne man lii nga xam ne dama koy def dama ci jublu jaamu yàlla comme nañ ko waxe woon ci kay liggéeylu loole itamit ma rafetal ko rafetal boo xam ne sàkkuwuma ci ngërëmu ki may liggéeyal waaye maa ngi ci sàkku ngërëmal yàlla yow mi tabax kër yow mi defar ab lal yow mi defar oto nga la waay bul xool ka lay liggéeyloo xool ci ngërëmal yàlla inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay sa borom yàlla moo bind rafetal ci lu mën a doon loolu tax yéen enseignant yi ay waaye ragal leen yàlla xool leen tey jii liggéey bi ngeen di liggéey ngeen nar ci génne de futurs médecins nar ci génne des ingénieurs des architectes nar ci génne ñoo xam ne dañuy taxawu liggéey bi loolu dana doon benn satisfaction morale boo xam ne waroon na leen a doy ngeen di sacrifier xale yi ngalawaay yow mi nga xam ne da ngay liggéey xoolal aussi fa ngay liggéey doonal koo xam ne ku koy yokk la ba ne doon ku koy yàq la na doon loolee matériel bala wala lu mën a doon xoolal tey année blanche yi ñu naan moom moo nar a am boo moytuwul yal na yàlla wuutal ñu lu ko gën waaye ñi nga xam ne ñooy xalaatkat yi estimé nañ ko nee nañ ci wàllu alal rek buñ ko defee danañuy jural trois cent milliards de francs moom la ci état Sénégal nar a ñàkk kan mooy état mooy man yow ñun ñooy la nga xam ne ñooy dajale suñuy dërëm dërëm trois cent milliards yu nar a dem ci ci ngelaw li booleeg tardement bu rëy bu mu nar a jural xale yi loo xam ne kenn mënu ko estimer lii lépp mbokk ci lan la jóge ci ñoo xam ne amuñu yarub islaam ey yow mi nga xam ne yaay liggéey xoolal ci sa liggéey bi li nga xamee ni nii mooy la sunu borom yàlla subhanahu wa taala ah diggaate ci képp koo xam ne nii rafetal na yal na yàlla dolli yërmaande sunu mbokk ba Ahmed Saxirloo bi nga xam ne moo yor daaray kokki dajale woon ay doomi jàmbur di leen jàngal di leen dundal te fayal ko wuñu dara am na ay mbokkam yi ko jege lan la daan wax ak neexoon yàlla may may milliard ma dajale gone yi Sénégal yépp di fay seen papa salaire ba pare man di leen jàngal xoolal ma gis-gis bi lan la jublu woon ci loolu mooy moom fayug yàlla la jiitaloon ci salaire ba nga xam ne ma lañ koy fay su ko defee yéen ñi nga xam ne yéen enseignants yi nekk ci àdduna teg sa bët dara waaw magistrat yaa ngi nii ah waa armée ngi nii li ñu am dama koy am yàlla yémalewul àdduna xool leen seen corps yéen enseignants yi am ngeen des titulaires mais am ngeen des vacataires am ngeen des contractuels ñoo xam ne seeni salaire yéemuñu kon yàlla yémalewul nga la way góorgóorlu leen moytu leen heure bu ngeen dee xool seeni àq moytu leen baalooru leen keneen islam dane laa darara wala dirara bul lor waaye bul loru yonent bi alayhi salaam teg ci ne laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqir kabirana bokkul ci ñun ku yërëmul suñuy ndaw ñi ay yéen enseignants yi xool na li nekk seen gannaaw ci des centaines de milliers d'élèves ndax man ngi leen sacrifier pour ay droit xool leen seen mbokk comme da ngeen di xool rek ku ngeen di roy ndax mun leen roy sapeur pompier yi nga xam ne seen slogan seen chiar seen bàkk mooy lan mooy sauver ou périr heure bu ñu demee di intervenir dañu ne bépp sénégalais buñ gis nga nekk ci coono même seen bakkan ba ci doon des sax daan ne leen a sobe ana lu tey woon yéen ngeen bàyyi xel ñooñu bala ngeen a bàyyi xel magistrat yi nga xam ne ñu doon def xaalis su ko defee nañ góorgóorluwaat mbokk julit delluwaat ci li nga xamee ni ni moom mooy njàngalem islam suñ ko defee ñun ñépp suñu xol day dal day sedd heure boo xamee ne tënku nga nag ci li neex yàlla yàlla wërsëgal la cent mille francs par mois loolee nga jaarale ko fa neex yàlla wallahi yàlla mën na ko barkeel ba nga raw borom un million par mois te gis nañ ko fi ba tay bi loolu moo tax ñi ngi woote woote boo xamee ne nii jëmale wuñ ko ci enseignant yi rek mi ngi jëm ci médecin yi mi ngi jëm ci képp koo xam ne da ngay taxaw ci place publique nga la way sa liggéey jiital te yàlla jiital ci fayum yàlla lii nii buñ ko defee jàmm dana am ci réew mi te it ngërëmal yàlla dana wàcc ci réew mi yal na yàlla subhanahu wa taala wàcceel ñu ngërëmam yal na yàlla wàcceel ñu jàmmam dëppale waat suñuy xol boo nañu ci la nga xam ne dañuy jëriñ àdduna ak àllaaxira اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل جنات الفردوس مسوانا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين